yaa xayra dayfin ataa bil birri wal madaadi alal masaanal mataa hiban bilaa adadi yaa xayra dayfin ataa bil birri wal madaadi alal masaanal mataa hiban bilaa adadi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 sëriñ bi nee na mi ngi balu ñëpp àq tey baal ñëpp àq. sant bu baax mi ngi sant bu baax a baax ci weeru tedd wii ñu génn. ak sunu bokk ngi sant itam bokk yu baax yii fi teew ak taalibe yi. sant ci xéewal yàlla xéewale mi ngi sant it xéewal gi ñu yàlla sunu borom subhaanahu wa taala xéewale tey. sëtub sëriñ Abdou Xaadir ñëw jiite sëriñ siidim sëriñ Abdou Xaadir ñëw jiite nu loolu ak dolleeku la ak tawféex la ci noonu ku nekk xam na diggante sëriñ Abdou Xaadir ak sëriñ Abdou nekk xam na diggante sëriñ Abdou Xaadir ak sëriñ Abdou te lii moom rek lay junj te lii ah, moom rek lay junj nee na tam dëkkandoo bu tedd bii di sëriñ maam Seexum sëriñ Falilu ak waa daayira xidma ak waa daayira xidma bi fi nekk yëpp ah, ak dëkkandoo yi fi nekk yépp ak taalibe yi bi loolu jàllee sëriñ bi nee na mi ngi nuyu suñu kilifa bopp nu ñëpp mu di Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko siyaare bu baax a baax te ñaan yàlla subhaanahu wa yàggal ko fi ak rakkam yi topp ci ginnaawam yépp bi loolu jàllee nag dañoo am lu ñu naqari dafa am lu ñu naqari loo xam ne dafa xew ci dëkk bi muy bërki dem rek te police yi def ko muy fekk nit ku baax ku yaru ku yiw fekk ko ci këram jàpp ko mënoote ko ba ma wax ndeyam te lépp ci ak jaaw rek lañ ko def te kooku sëtu sëñ Basiir la boole ci yëf nag bu doon benn yoon sax ba ne sa koo jàppale ak njuumte waaye dalul benn du ñaar jaaw dem nañ fi ci ay juma dóor fa ña fa nekkoon ren yi ñu ñëwati defati lii kon ci koor kon day mel ne la te dëkk bi nag dëkkub sutura la dëkkub tiraangal dëkkub ormal la dëkkub yërmande dëkkub njëgal la moo tax sëñ bi sanc ko kon nag ku fi ñëw dangaa war a am yërmande joojee waruñu fee indi ay police ak rek ñuy def leen neex def njaboot sëñ Tuubaa leen neex fii sëñ bi da ko seet muy dëkk bu sori benn buur moomu ko genn nguur moomu ko suñu borom jox ko sëñ Tuubaa mu dëkk fi dëkkal fi ne yéen bëgg leen rawale bëgg ñu mucc kon suñ leen fekkee de toroxal nag loolu lu mën a ñàkk la lu ñaaw la itam ñi ko def war nañ leen a sanctionné bu baax a baax ndax du njuumte ak tayib man loolu laa ko mën a jàppe dëkk bi nag moom dëkkub Sëriñ Tuubaa te ñun ñëpp ñoo ko war a sàmm ñun ñëpp ñoo ko war a aarale waaye lii fi xew nag moom di toroxal ay gox di toroxal ay jullit tax ay taalibe mën naa ñàkk dañoo war ku ñu fi indi ku ne ñu seet ko ba mu doon ab taalibe ku war a mën a jëflante ak nit ñi teg ko fi waaye duñu seet ab sàmba boy wala koo xam ne dafa en waa dëkk ko fi muy toroxal nit ñi loolu mën a ñàkk brigade yi fi nekk yëpp brigade spéciale lañu police bi ñu fi ñëw daa am leen fi indi woon gendarme yi bi ñu fi ñëw da leen am di tere am tux ak carte ak naan ak yu mel ni ñoom ak moo leen fi indi woon waaye leen fi indi woon nag daa mel dañu koo bàyyi te tëgg yaa ngi koy dégg lu ne ngi am ci dëkk bi te ñoom xaalis rek la ñuy wut ci li ma ko gisee ak toroxal julli toroxal taalibe bi Sëñ Tuubaa loolu nag lu mën a ñàkk la sëñ Muntaxa génnul ci biir ba xam ne ci xew lu ci dana ko saafara waaye nun ñu nekk nag nekk ci biti te xam ne ci xew ñoo koy dénoncé ba ñëpp dégg ko lii daal lu nu naqar lu nu tiisal lu metti la te ñañ ko def nag am na noonu dañoo naroon a fayu ji dañu waxoon dañoo naroon dem taal brigade bi ngir fayu te loolu boobaa musiba lay jur kon nag ñi leen yilif nañ xam ni ñu fenn teg leen ci yoon te suufal waa dëkk bi ormal leen jox leen seen àq droit de l'homme gi ñu wax ko ma fu mu nekk sax Palestine la fa nekk kenn xamu ne mi toll julli dañ fekk toroxal leen ci seen jàkk américains yi leen yilif ak France yi waxuñ ci tous fam nag seen luwaay yi bon bu ko saxal ci julli yi daganal sàngara daganal góor jigéen loolu lu mën a ñàkk la li dal naq na ñëpp ñu ngi koy naqaru tam sëñ bi itam yéen ñi nga xam ne ay ñaankat ngeen ngeen di ñaan ba lii musiba mii jëm si dëkk bi yàlla teg ko ndax lu ñàkk solo la te wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaa xayra dayfin ataa bil bisi wal madani